صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك واميق comme ni ngeen ko xame te ñu doon euh, dañoo pare léegi ni si réunion bu doon def pour préparer wàccaayu gàmmu gàmmu international bu Medina Baye muy gàmm goo xamante ni ñoo ngi ko séntu vers le 15 septembre 2024 comme ni ñu ko daan defee nag suñ jubloo si gàmmu gi comité d' organisation bi dafa am benn cahier de sollicitation bu ñu daan dicté maanaam day tënk lépp li nga xamante ni ñoo ngi koy xaar si administration pour gàmmu gi mun a jaar si anam yi mun a jaar yoon yu mucc ayib euh, sollicitation yooyu maanaam xaar yooyu ñuy xaar si administration laal na wàllu santé laal na wàllu assainissement laal na wàllu yoon yi laal na wàllu sécurité suñ si tànnee lu mel ni sécurité rek euh, gis nañ effort bi nga xamante ni police ren prévoir na pour def parce que comme ni kaw la comme ni nga ko xamee police moo koy gérer daaw 700 éléments leen indi woon ren leen dina indi 800 éléments donc gis ni tegaan nañ si téeméeri éléments yu ñu war a indi soo jëlee si wàllu assainissement également am na jéego am solo yu nu jàpp def Euh, par rapport ak l'année dernière ak sécurité civile sapeur pompier yi mais ma doon fàttali nag dafa am dafa nekk gàmm goo xamante ni ren euh, dañ koy organiser ànd ak ñetti mandarga bi si njëkk mooy si période nawet la nekk te ku xam nawet xam Kaolack dëkk boo xamante ni la inondation daf fi daf fi daf bëri d'ailleurs depuis boobu Kaolack rek moo fi nekk commune bi nga xamante ne amoon na fi inondation fa yële si ginnaaw parce que si ñetti waxtu amoon na quatre-vingt-quinze millimètres yu ñu recevoir oon mu xawoon fi créer ay jafe-jafe mais risque boobu dañ ko jël si cadre global dispositif bi ñu mettre en place pour bañ inondation am fii si Medina Baye beneen mandarga bi bi marqué gàmmu ren bi mooy contexte épidémiologique dafa am feebar yuy wàll yu bees yu fi xew temps yële am na benn cas bu nu amoon gën gi néew mu jël ko en charge très rapidement donc variole bi ngeen dégg ñu koy wax Crimée du Congo ñoo ngi koy dégg ñuy wax fu nit ñi di daje nag day jar ñu day laaj ñu jël matuwaay yooyu pour bañ fièvre yooyu ou épidémie yooyu dugg fi. beneen élément de contexte muy ñetteelu mandarga bi mooy su ne suba la gàmm muy la 14 dañuy inaugurer esplanade bi muy na bi mu nekk inauguration boo xamante ni dafa am fu mu àgg sëñ bi. am ay muxaddamu baay yu muy invité yuy jóge si yeneen gox yi si yeneen réew yi donc mu nekk événement bu rëy à la dimension du gàmmu donc mu nekkoon beneen élément bu ñu war a jël en charge pour mun a jël dispositif approprié en termes de sécurité surtout pour gan yooyu nga xamante ni sëñ bi moo leen invité ñu ñëw si jàmm delluwaat si jàmm bañ a am benn gàllankoor. bu tedd bi Seydina Mawlana Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di gërëm suñu sëriñ Cheikh ak ki nga xam ne moo waral gàmm ci Medina Baye muy Mawlana Cheikh Lislaam Alhaaj Ibrahima Niass radiallahu anhu nga xam ne bu weer wi teroo dafay wax ne haniyan li Ibrahima laaxa hilaaluhu hilaalun badaali naadirina jamaaluhu maa ngi ndokkeel sama bopp man Ibrahima mën na mu ci boppam moom Mawlana Cheikh Ibrahima Niass waaye mu ne sama weer wi teru na loolu dayoo mbëggeel lay tegtal Cheikh Ibrahima mi nga xam ne moo waxoon ne ala fashhadu a uhibbu muhammada na ngeen seede ne man ku bëgg yonantu laa Muhammad li koy dëggal mooy doomam yëpp yonent leen tuddee dëkk bi Medina xam ne na yonent bi ci siira waaye xam ne na ko tamit ci xam yàlla ci xaqiqam ba ne nuuruhu awalul wujudi wujuda foofu asul usuli wal anjaali leeru yonent sallallahu alayhi wasallam mooy cosaan yi ndey ak bàyyi moom la yàlla njëkk amal kon ci loolu laay tàmbalee waxtaan wi <coughs> di nuyu mboolem ñi déglu ak ñi fi teew ñëpp jotaayu tey bi solo bi li ko war <coughs> li ko daje boo xam ne comité d'organisation bi muy COMAF ñu doon daje ak Euh, monsieur le gouverneur ak mboolem service yi nga xam ne nii ñi ngi aju ci Kaolack yu aju ci gouvernement yu aju ci euh, société yi doon waxtaanee cahier de sollicitation bi nga xam ne moom lañ leen joxoon pour ñu càmbar ko waxtaan nañ ci domaines yu différents yoo xam ne lépp dafay delluwaat ci lu jëriñ askan wi dëkkee Kaolack waaye itam luy faciliter euh, pèlerins yi taalibe yi ak soppe yi Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam yi dëkk ci réew mi ak yi bàyyeekoo ci bitim réew yàlla dogal na Mawlana Cheikh Ibrahima euh, mbiram international la ci zahir ak ci baatin ba tax na fu nekk ci réew yu fasantikoo la taalibe di jógee loolu yëpp waxtaanee nañ ko ci jotaay bi. ak tamit nawet bi nga xam ne yàlla def na daaw ba ren ñu ngi ci jamonoy nawet te dafay gën a jëm kanam ba lu yàlla soob mboolem matuwaay yi nga xam ne moom lañ ci soxla waxtaanee nañ ko côté social côté yoon wi nga xam ne taalibe yi ak soppe yi jógee ci bitim réew. ñu ñaan chauffeur si ak euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy apprenti ñu bàyyi xel yoon yi bu baax di daw ndànk sóoraale loolu dafa war a nekk ci jamono ju nekk mais rawatina ci jamono joo xam ne nit ñaa ngi bëbb jëm ci jotaay euh, fuglu ak euh, dégg nga màggal gi nga xam ne mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci ndigalu xalifa bi nga xam ne mooy xalifatu saaxibil fayda di xaadimul umma di mawlaaya cheikh Mouhamadul Mahi cheikh Ibrahima Niass dajee nañ ak ñoom wax dëgg yàlla service yëpp ku ci nekk wax nga sa xalaat ak sa mën-mën ci euh, sollicitation yi nga xam ne moom lañ sàkku ci ñoom ba mën nañoo wax ne am nañ xel mu dal koo xam ne nii incha allah bu ñu yàlla jàppalee jàppale leen ñu appliqué ko danañ am gàmm ngoo xam ne nii dana am yokkute ci wàllu service yi dana am yokkute ci wàllu pèlerin yi ak bi ñuy dëkkee Kaolack ak Medina Baye. ci kaw loolu tamit ñi ngi wax tamit ne euh, jotaay tey bii jotaay bu am solo la parce que occasion la pour dajeek euh, suñuy mbokk journalistes yi nga xam ne wax dëgg yàlla ñooy taxaw askan wi di taxaw gàmm gi di nuyu mbooleem rajo yi fi teew ak télévision yi fi teew yëpp kenn ku nekk si turam ak santam buñ toppee tur yi mën nañoo fàtte kenn mais yéen ñëpp amal nañ leen ngërmande média dina Baye ñu ngi leen di ñaanal yàlla di leen remercier ci seen taxawaay sama adjoint yi ngi teew samay mbokk ak ñenn ci président commission yi teew nañ ci jotaay bi kon ñu def lu may remercier ñëpp ñaanal tamit monsieur le gouverneur bi nga xam ne mooy fi jugee war a dem Ndakaaru dëgg yàlla seede nañ ci moom seede yu rafet ñu ngi ñaan fi mu jëm ak confiance bi nga xam ne moom la président am ci moom ba tabb ko mu matee ko taxaw taxaw Sénégal taxaw ko bu baax a baax ñi ngi ñaan tamit ci gàmm gi nga xam ne ñi ngi soog a dugg ci gouvernement bu bees boo xam ne nii ñi ngi taxaw pour taxaw askan wi sénégalais yi am confiance ci ñoom ah ñu toll ni gàmm yonent sallallahu alayhi wa sallam amul lu ko ëpp kon nag monsieur le président euh, Mamadou Bachir Diomaye Diakhar Faye ñu ngi lay ndokkeel ci at mu bees mi nga xam ne yaa jiite Sénégal ñuy defal gàmm fii ci dëkk bu tedd bi nga xam ne Cheikh Ibrahima waxoon ne ne mbootu yonantu sallallahu alayhi wasallam royaat na fii mbootu yonantu bi royaat na ci jëmmam kon ñu ngi leen di ñaanal gàmm gu mucc ci ayab di leen ndokkeel ci seen nomination yu bees yi nga xam ne def ngeen ko ci premier ministre bi Ousmane Sonko ak mboolem ñi aju ci ñaan yàlla dafa leen jàmm di leen gën a fàttali askan wi di leen gën fàttali lislaam bi di leen gën a fàttali alqudsu mooy mbokk yi nga xam ne mooy ca Jérusalem nga taxaw taxawaay bu rafet ca Gambia défendre leen ñu ngi ñaan yàlla te au Sénégal yëpp di au jullit ñëpp ñu bàyyi leen xel am na journée boo xam ne journée internationale la pour Quds ci gàmm gi ah ñu ngi koy fuglu di ñaan àgg ci ci jàmm waaye tamit euh, esplanade bi nga xam ne sëriñ bi woon na ko bañ tabax ko ba mu yemb moom it ñu ngi ciy xaar taalibe yi ak soppe yi ak journalistes ñaan ñu fekk jàmm yàgg taxaw taxawaay bi mel nii yàlla yàlla dimbali islam def jàmm Sénégal def ko ci booleem umma islamiya loolu laa amoon kàddu ci lu may wax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu salaatullahi dumma salaamu fa